aywa Chérif euh, li ci yéene kaay euh, dañ koy doore ak euh, l'observateur <laughs> waaw ñu tàmbale ko ak l'observateur ñëw na si soxna si di Aminata Lo Dieng moom nekkoon na fi ministre sénégalais de l'extérieur ak wàllu tourisme am na jafe-jafe ak wàllu yoon ginnaaw bi mu violé couvre-feu bi moom nag bu moyee li naan xotti woor ma alkaati yi ak njiitu réew mi am na beneen tamit mooy ay njuuj njaaj wàllu foo ba tax kon mu génn moom nag tey lañ koy defeere mu jàkkaarloo ak procureur de la république soxna Diary Sow mi ngi nii ba léegi ak tontom di Serigne Mbaye Thiam mu mel ni kon yéen a kaay na ci secret seen diggante ñoom ñaar ñi ak tamit enquête bi nga xamante ni yéen bi def na ko ci procréation médicalement assistée soxna yi nga xamante ni dem nañ ba mënatuñoo mucc di fay kii moom wax na ko nee na daanaka ñaari million ak xaaj la fay ngir rek mën a amaat doom technique yoo xamante ni kon Sénégal mi ngi koy appliqué fii ci réew mi ñu ñëw ci yéen kaay bii di enquête moom gis ngeen ko noonu rek ak li nga xamante ni mooy couvre-feu bi ak dégâts yi mu am ci wàllu économie informelle bi mu mel daal euh, borom euh, gargo méthode yu ni mel ay tàngana dafa mel ni ñoom ñoo ci gën a ñoo gën a yëg mbir mi gis nga ko noonu te tàng na moom Fatick lu baax la ñun ñëpp ku ne xam na ni solo sim am ci réew mi jàngoro ji nag dafa mel ni kon mi ngi bëgg rek indi ay jafe-jafe le quotidien mi ngi nii moom daal di ñëw rek ci li nga xamante ni mooy conflit yi jafe-jafe yi nemee ci wàllu suuf mu mel ni kon terrain mii ne la ko ndax Sénégal ñetti téeméer ak juróom-ñaari cas ni wàllu litige la ñu nemee ko fii Madiambal moom ñëw na li nga xamante ni mooy emploi fictif yi nemee ko ci wàllu administration bi ak tamit wàllu gerte gi commercialisation bi euh, loolu yéen kaay bi moom moo ci waxa président Macky Sall moom mi ngi nii maskam ak tamit li nga xamante ni daal benn industrie pharmaceutique la bu nekk fële ca Turquie gannaaw ba mu fa amee rek tukki nemmeeku Abdi Ibrahim kon bëgg naa ñëw fii ci Sénégal moom it ngir rek daal di koy euh, samp gis nga ko bilan Covid bi fii ci Sénégal ci weeru janvier bi test yi def bari na ak tamit li nga xamante ni mooy cas yi lu toll kon ci 7387 cas positifs 4716 ak tamit ñoo nga xamante ñoom ñoo ci wér ak 218 yoo xamante ni kon téeméer la ak juróom-ñett yu ñàkk fukk ak juróom-ñett yu ñàkk seen bakkan li nag njombe la di loo xamante ni lu tiis la libération daal di ñëwaat ak xale bi nga xamante ni kon fukki at ak juróom la am mu mel ni kon dañ ko saat ku def ko naka sa du noonu te nijaayam moom moo ko def muy drame boo xamante ni njaboot gi ñoom ñoo ko doon rek euh, nës-nësal tuddee ko ndax mbiram sutura ba tax na kon gone gi am jafe-jafe ji nag kon daal di nañ ko jàpp Basirou Sall daal di tudd buñ sukkandee kon ci Libération Tribune daal di ñëw moom rek ci li nga xamante ni kon mooy jafe yi ne am ngi rek daal di téye jàngoro ji di coronavirus di mbas mi ba tax na kon bombe communautaire bi rawatina cas yi ci juróom-ñaari fan junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-benn cas yoo xamante ni kon nemeeku nan ko fii fukk ak juróom fukk ak ñett ñoo xamante ni kon ñàkk nañ seen bakkat daanaka ci benn semaine mooy loo xamante ni kon lu tiis la wàllu politique ak Walf Quotidien ñëw na rek ci professeur Madior Ismaïla Madior mi nga xamante ni kon ministre d'état la ba pare nekk rek ci cour boo xamante joxe na ko ci wàllu rek mandat bi ak yu nu mel dafa mel ni kon dafa jàpp ni bu dee wàllu mandat bi nag président moom mooy le principal concerné li nga xamante ni mooy wàllu décentralisation moom mi jiite woon comité de pilotage bi am na ci gis-gis ñu ñëw ba léegi ak Ismaïla Madior Fall mi ngi nii ci laas moom it mu mel ni kon euh, li mu bëgg rek mooy président bi local yi ñu daal di koy amal ci atum 2021 bi ñu nekk Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ba léegi ci borom xam-xam bi moom mooy chef de l'opposition Seydou Diouf moom li mu bëgg mooy ñu couplé élection locale yi ak élection législative yi les échos daal di ñëwaat ci statistiques yi nga xamante ni kon ca cimetière Baqiya daanaka lan fa faat ci euh, lan fa denc ci ay góor ëpp na fukki yoon lan fay denc ay jigéen buñ sukkandikoo kon ci yéenekaay bi daanaka fukki junni ak ñaar ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari doomu aadama Euh, rob nañ leen fa rek ci ñoom nag daanaka fukki junni ak benn yëpp ay góor lan muy loo xamante ni xëy xam-xam a lat Jóob mooy yéenekaay bi ñu a moom ñëw na rek ci li nga ni mooy dosier wàllu vaccination bi lu nu mel ni kon réponse OMS yéenekaay bi daal dina koy wax virus moom mi ngi continuer di def njombe fii ci Sénégal daanaka weekend bi fukk ak benn décès am nañ ko juróom fukk ak ñeenti cas grave yoo xamante daal contamination yi tamit mu mel ni kon mu ngay wéy professeur heure euh, bii nga xamante ni kon moom mooy musaa Diop moom mi ngi wax rek gars ñu at def ndànk ci li nga xamante ni kon mooy diplomatie bi ñu dugal ci candidature Augustin Senghor ci wàllu CAF Euh, ñu dem ba léegi ak maire bi nga xamante mooy maire HLM moom mi ngi ci vox pop daan wax lan moo tax kon mu daaneel marché bi ndax bu ko defutoon la fay xew mooy gën a yées kon lan am ca bataloo Joola faati ñu baral mbir yi te mel waxtu waa ngi jot kon le quotidien ngi nii moom ñëw na rek moom it Sud Quotidien ci li nga xamante mooy euh, borom xam-xam yi ci wàllu politique Ismaïla Madior Fall Seydou Diouf ñoom it wax nañ rek li nga xamante ni kon mooy suppression ville élection locale yi ak présidentielle yi vert moom digganteem ak Tëngéej FC Jaraaf kon moom moo duma démb waa Tëngéej FC luy soirée FC ngi nii moom comme di tëb di bonde gis nga ko ndax rek ñaar yoon daanaka la dugal démb moom ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy waa Atlético ñu jeexale ko ak ki nga xamante ni kon mooy Eumeu Sène moom moo nekk kon ci sunu làmb Eumeu Sène a ngi noonu kon volonté bi mu am rek ngir daal di daaneel ki nga xamante ni mooy Lac 2 mu mel ni kon Eumeu Sène combat bu compliqué loolu daal am sunu làmb nag sax duñu wax ñu combat mais xamul kañ la mbëri di tàmbali làmb euh, bëre bi faati ndax mbas mi. mbas mi tax kenn xamul kañ la il est exactement 7h40 Abi fay jërëjëf Alhassane